exception. malaat jigéen la may part ci jigéen. ci góor. Ah, ok malaat sama fi ne. malaat la may part ci man. waaw ci yow. Ah, personnellement eh, kon nel eh, oui ma. gerte sec bi mu ngi laax lu bi. Eh. yàlla def leen loolu. yow dafa la parti barki Serigne Touba ah. Seck la mooy sa parti préféré yow. Ah? la mooy sa parti préféré jigéen waaw. lu lu ndaw ni ñu koy waxee lan. tef tef. man tef laa tef. tef je te connais trop voilà. bi su wiiree tuuti rek <laughs> ngeen comprendre. tef la bëgg tef eh, ma toll fii rek. ah fëtee eh, eh, <laughs> waaye sa part intime sa part kii la. tef rek préféré ak euh, jigéen. man kale kale saa jaaxal nag barki mu xaj kale. billahi laa gën a du parti kale du parti. eh c' yow affaire teg xel yaa bëgg affaire teg xel ah sa parti parti ban la sa parti bàyyi ko rek Issa très bien Issa. yow da nga bëgg affaire bu mag. non ay kale. <laughs> ah dëgg la. jumba. loolu lu ne la. girif. girif bii. jumba jërëjëf lool wax yow nga ne jumbax loo ci ah. et c'est que jumbax yow lan moo ci nekk. wala da nga koy xool rek. bu ñu persil. yéen ñëw de. Cheikh Béthio bii. ah, ah. yàlla yàlla na xel dee. yi tànk tànk kan la kii réere kii réere non daf bak si taw du génn waaw suuf rek yi tànk tànk yi tànk tànk kan la non je je vais pas rek yow nag suuf rek <laughs> léegi comprendre ngeen ah <laughs> eh, léegi comprendre ngeen ah <laughs> ay sec yàlla xel dee eh, xool lam zoo doomu raam ji commencé naa bind ak a a duul xaaral ma dugal Lamzo xaaral ma dugal Lamzo. non du wax du wax Lamzo sutura. Lamzo daa am sutura barki sëriñ. non non ci jiin bi rek laa ko teg jiin bi jiin bu seer la jiin bi ngeen gis jiin bu seer la ku bëgg jiin bi. sans exception. malaat jigéen la may partenaire ci jigéen. ci góor. ok malaat sama gel bi fi ne. malaat la may partenaire ci ma.

man tef laa bëgg tef. tef je te connais trop voilà tef téléphone bi su wiiree tuuti rek <laughs> ngeen comprendre. Eh, eh, eh, ah? tef ah, <laughs> intime sa part kii la. tef rek euh, jigéen. man kale kale saa jaaxal nag barki a du parti kale du parti. c'est yaa bëgg a teg a yaa bëgg teg xel ah, sa parti parti ban la sa parti bàyyi ko rek bàyyi Issa très bien yow da nga bëgg affaire mag. noonu ay kale. <laughs> Serigne Touba lu ne Jumba. loolu Jumba. Girib bi Girib ne Jumba loo ci wax. et Jumba yow lan moo ci nekk. wala da nga rek. bu mbéy mi. ay yàlla yàlla na xel dee. yii tànk tànk kan la. kii réere kii réere. non dafa bàcc si taatu génn. waaw ah, suuf rek yéen tànk tànk. yii tànk tànk la. non je te rek yow nag suuf <laughs> <laughs> <laughs> ay sec yàlla xel dee eh, xool lam zoo doomu ji commencé naa bind. ak mën a duul. xaamu dugal lam zoo xaamu dugal lam zoo. du wax du wax lam zoo sutura. am na sutura barki sëriñ. non non ci jiin bi rek laa ko jiin bi jiin bu seer la. jiin bi ngeen gis jiin bu seer la ku bëgg jiin bi.